aousubillahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim barke borom Touba bu buñ sante yàlla sunu borom subhaanahu wa julli ci yonentem bu tedd ba yeesala sun pas-pas ci seexul xadim ñaanal bu baax a baax Cheikh Muntaxa yàlla sunu borom yàggal ko fii lool te weral ko di ko ñaanal seriñ am di Moodu Mbenda ak mboolem njabootu sëriñ Touba geeg njabootu maam Cheikh Rahma gi di nuyu bu baax a baax di ziare mbokk yi nga xamante ni ñoom lañ àndal fii ci jumaa ji indi liggéey bu sell bi nga xamante ni muy liggéey daayira Muxaddamatul Xidma jóge ba Mali ginnaaw loolu di ziyaare bu baax sëriñ Afia te di ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko di ñaanal mboolem jëwriñam yi mu àndal ci liggéey bu sell bi ñaan yàlla sunu borom guddal seen fan te wéral seen i cër te yokk leen kattan ak doole ba fépp fu bëgg liggéey bi yegg fa rek mu yegg fa ci barkeb Seexul Xaddim di ziyaare bu baax tamit waa daayira Muxaddamatul Xidma diaspora mun ci jiitalee jëwriñ sëñ Assane Diop ak euh, sëñ ma Fëri Ndiaye ak mboolem fu jëwriñ nekk rek di liggéey liggéeyal daayira Muxaddamatul Xidma ñu ngi lay ziyaare bu baax te di la ñaanal taw ak tey siir ci barke Cheikhul Khadim noon leen di ziyaare bu baax tamit waa daayira bu Mali ci njiital ndongalu xeebu lii di wax sëñ Maam Balla Gueye ak euh, sunu jëwriñ ji ñu àndal Serigne mbay Thiam ak euh, Serigne Jili Mbaw sëriñ maam góor ja moom maga ja ba Mali euh, yàlla suñ borom dogal la teewul wante ñu ngi koy nuyu bu baax a baax te di ko ziyaare ak mboolem jëwriñ yi nga xamante ni bëggoon nañoo teew te yàlla suñ borom dogalu ko te nekk ci réew ma ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñ borom defal leen tawféex ànd nañoo tamit sëñ Fallou Thiam mi nga xamante ni tamit bokk na ci secrétaire yi bokk ci trésorier yi nga xamante ni ñoo yor liggéey bi ànd tamit ki nga xamante ni mooy sëñ maam Thierno seen moom tamit yor section fële ca euh, Balada Bugu moom tamit euh, euh, Mañaam Bugu Mañaam Bugu fee ca Mañaam Bugu ca jëwriñ ñoom sëñ ma bëri aajak ñoom jëwriñ ñeen seqal liggéey bi foofu di ay jàmbaar lool ñoom tamit saa su nekk rek ñu ngi dajale seen addiya di ko indi ci liggéey bi ñoom tamit ñu ngi leen di ziare bu baax di leen ñaanal tawféex ak taysiir di ziare bu baax tamit euh, sëriñ Ali Ndiaye xasida moom tamit di euh, troisième vice président daayira Muxaddamatul Xidma moom tamit di jàmbaar lool ci liggéey bi ñu ngi koy ziare bu baax a baax a baax ñii leen àndal indi liggéey bi nga xamante ni mooy liggéey bi sëriñ Tuubaa bi Euh, sëñ Mbaye mi mooy vice président bi Baye Jili mbaw mais mooy trésorier bi ak jëwriñ yi nga xamante ni ñoom lan àndal liggéey bi fekk fi tamit suñuy jëwriñ suñuy kilifa suñuy sëriñ di ñaan yàlla suñ borom yàggal leen fi ñu yàgg fee ñëw yàgg leen fee fekk ci barkeb Cheikhul Khadim buñ ci limee euh, sëñ Abdoulaat Maassa sëñ Abdoulaat Maam Thierno ak euh, sunu jëwriñ ji toog sëñ jiili ak sëñ bu se mi nga xamante ni saa su nekk moom leen ñuy fekk ci barab bi mu yor wàllu euh, caméra yeeg wàllu télé bi ñoom tamit ñu ngi leen di siyaare bu baax te sëñ Abdoulaat Muxtaar ñu ngi koy siyaare bu baax a baax di tub bu baax ci kàddu yi nag liggéey bi tamit nii rek lañ koy doxee at mu jot buñ fi dajee lépp lu dajale ci àddiya mu néew ak a bari ñu daje fii jébbal ko euh, euh, jëwriñ yi tàllalaat suñuy loxo ñaanaat ci barki Cheikhul Khadim ñu fekk ko déwén te àddiya ji ni indi ren ji déwén ji gën koo faw noonu la li ñaan saa su nekk ndax murid yi am na pas-pas am nañ pastéef ndax liggéey bi li muy li muy li muy metti metti ak dëkk bi li muy jafe-jafe liggéey bi moom tardé luñ ko benn yoon saa su nekk bu jóg jotee dinañ jóg bu wax jotee dinañ wax daje yi nga xamante ni tamit moom la ñuy daje ca Mali muy le neuf bu jot ñi daje ca kër Serigne Touba di fa teewal daayira bi di ko soññee boobu tamit saa su nekk lan cee war a def lépp ñu ngi koy def kon ñu ngi sàkkuwaat ñaan baax a baax a baax ci kilifa yi ñaanal taalibe yi nga xamante ni ñu ngi sóob seen loxo ci liggéey bi yàlla suñu borom doolu leen kàttan ndax seen yitte yëpp kat muy liggéey daayira mu xaddimati bi xaddimati bi jëm kanam ah, la ma doon wax tamit saa su nekk tamit ci pas-pas boobu lan nekk mooy pas-pas bi mooy bëgg na dem a dem ba nga xamante ni di nga dugg ci jumaa yi Touba daal ni lii de daayira mu xaddi mu xaddi mu xaddimatu xidma bu Mali ñoo ko fi def muy mandarga loo xamante ni danañ ko am ci biir jumaa ji suñ pas-pas loolu la dañuy wax ni suñ pas-pas du rek dajale addiya at mu jot ñu indi ko wante lii ay matériel ñu koy def ci jumaa ji te jumaa ji di soxla ñu ngi ñaan kilifa yi ñaanal ñu ci ñoom am kattan loo xamante ni dinañ ko man di ko yëkkati di ko indi ci jumaa ji ndax kat am na yéene jë Euh, xaj na doole ji moo ko mateegul wante am na yéene ji wante sëriñ bi moom soo ko bëggalee dara dangay ngay ànd ak pas-pas rek aku fit ak ñime ndax sëriñ bi moom lépp loo ko yéene defal rek soo soo soo ko ñaanee am na ko te fii ñu koy defee tamit di ko fi ñaane ci barabu sell bi am nañ yaakaar ni lépp luñ fi ñaan yàlla suñu borom dina ko nangu kon ñu ngi sàkku ñaan bu baax a baax a baax ci kilifa yi di santaat sëñ mbay ak sëñ Baye Jiili nga xamante ni daanaka jëwriñ yu baree bari ñu ngi Sénégal wante taxul liggéey bi sooxe foofu la ca war saa su nekk ñu ngi koy def wax dëgg yàlla la ca war saa su nekk bu jog jotee ñu ngi jog bu laaj jotee ñu ngi laaj bu joxe jotee tamit seen poste du ko fekke kon ay jàmbaar lan lool yàlla na yàlla suñu borom dolli tawféexi bu baax a baax a baax hmm? waaw di di di jégg lu baax ci jëwri ñi nga xamante ni xañ na ñoom lañ waroon a jëkkee ku ci mel ni Serigne Mame Balla Mbacke mi nga xamante ni moo fi toog toogaayu Serigne bi ak soxnaam soxna ma Faati Mbacke mi nga xamante ni tamit setu Alaaji Baara di setu Serigne Modou Moustapha moom tamit nekk ca dëkk ba ak Serigne Tàkko Ndiaye mi nga xamante ni mooy jëwriñu Matlabul ni xanaa di leen woowaat bu baax a baax a barak ak mbooleem jëwriñu fédération yi nga xamante ni ñi ngi Touba Mali ñëpp rawatina ñi nga xamante ni ay section lañ yor ci daayira Muxaddamatul Xidma ci gox yi fasante yëpp ngi leen di soññiwaat bu baax taxawaay bu baax a baax ci liggéey bi rawatina tamit jëwriñ yi nga xamante ni ñoo ngànk liggéey sëriñ Touba bi foofu muy sëriñ Tàkko Njaay mi nga xamante ni moom lañ wax léegi ak sëriñ Maam Balla Mbàkke mi a xamante ni moo fa toog toogaay sëriñ bi ñu ngi leen di tàllalaat loxo bu baax a baax a baax ci liggéey bi ngir ñu ci soñee bu baax di ci dugal seen loxo ndax kat ñoom danoo bokk ci liggéey bi ndax damay wax ni liggéey euh, jumaay Touba moom képp kuy am murit yi war ci dëkk bu mel ni Mali kon liggéey bi nañ ko bàyyi xel nin bàyyee xel yeneen liggéey di ci dugal seen loxo di ci soññee daal ñu ngi leen di ñaanaat bu baax baax a baax ñuy soññee ci liggéey bi di ci bàyyi xel ndax ni leen ko waxee rek ñun yoruñu liggéey bi ngir sunu sago ñoom ñooñu ko dénk rek ñoom lañ ko yoral ndax ñoom liggéey bi bu fa nekk ñoom ñooy jëwriñ kon liggéey bi tamit ñoom ñoo ko yor di jëwriñ ji li ñuy soññee ci yeneen liggéey ñu ngi leen di ñaan bu baax a baax ñu ci soññee bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi fi teew ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ndokkeel di leen siyaara di leen balu àq di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal sun borom mu yàggal ko fi te wéral ko di am mbégte it di dalal sunu mbokk yi nga xam ne mooy daayira Muxaddamatul Xidma Touba Mali ci ndigalul sëriñ Afia Bousso imaam mi nga xam ne mooy jiitul daayira Moukhaddamatoul Khidma tey jawrin yi wuutu ko fi ànd ak ngir teeru leen dalal leen fii ci jumaa ji ngir liggéey bi nga xam ne yéen a koy def mu jëm ci jumaa ji muy liggéey daayira Moukhaddamatoul Khidma te yàgg koo def rawatina ci waxtu wi muy màggal ak ak koor eh, sëriñ Abdoul Ahad Bousso maam Assa mi nga xam ne moo jiite commission sociale et relations extérieures mi ngi ni toog sëriñ Abdou bu Bousso Mokhtar mi nga xam ne ci secretaire général yi la bokk bokk ci ñiy coordonné liggéey bi moom it mi ngi nii toog ñu wuutu fi sëriñ Afia euh, jox ma seen kàddu yit ngir ma wuutu leen ci dalal leen sëñ Mame Balla Gueye ñu ngi lay nuyu bu baax di la yóbbanti nuyoo ci jëwriñ sëriñ Mame Balla Mbacke mi nga xam ne moom mooy representant sëriñ bi foofu ca Mali di taxaw liggéey bi ak mbooleem jëwrin yi nga xam ne ñoo fa nekk te te teewuñ ak gox buñ mën a nekk ci ci biir Mali ci capital bi ak ci dëkk yi ci des ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel waaye di nuyu e, bokk yi nga xam ne ñoo ànd ak yéen ñëw teew fii e, ginnaaw buñ ci jiitalee sëñ Mame Balla Gueye mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi sëriñ Mbaye Thiam mi nga xam ne mooy vice président bi di secretaire sénéral bi tamit euh, sëriñ Jiili Mbaw mi nga xam ne mooy trésorier bi moom it ñu ngi koy nuyu ak sëriñ Aale Thiam mi nga xam ne mooy deuxième vice président bi ak sëñ Fallou Thiam ak euh, sëñ maam Thierno sëñ maam Thierno Sène euh, mi nga xam ne sëñ Fallou Thiam mi nga xam ne moo doon yëkkati xasida yi léegi waaw sëñ Ali Diagne waaw sëñ Ali Diagne mi nga xam ne moo doon yëkkati xasida yi di deuxième vice président ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. waaye nuyoo boobu yëpp it munuñ cee ñàkk a boole sëriñ Mafari Ndiaye sëriñ Mafari Ndiaye ndax euh, liggéey Muxaddamatul Xidma euh, ñun duñ duñ fakk jëf ndax contact bi nga xam ne moo dugal liggéey bi ci Mali wax dëgg yàlla ci moom la jaar kon saa su nekk euh, fu mën a nekk bu ngeen ñëwee faaw ñu nuyu ko sant ko kon ñi ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sant di leen gërëm di yit it di yi nga xam ne indi ngeen ko mu jëm ci liggéey bi ci waxtu wu nekk ñi ngeen koy defee moo xam màggal la moo xam koor loolu lépp nag euh, seen pasteef ak seenu nosu kenn ku nekk xam na ne euh, fan yee bi ñu demee ci réew yi Afrique yi rek am na ci réew yoo xam ne ñu ngi ko fay wax ci wax dëgg yàlla ci sous-région bi xëy na booba agsi wuñ Mali waaye euh, xat yi la rek waaye waroon nañ faa agsi waaye xam ne gis nañ nos nosu bi ak liggéey bi ni leen ñore ak it yokk goo mi ngi koy yokk ci waxtu wu nekk. moo xam ci màggal gi la moo xam ci koor gi kon ñi ngi leen ci sant bu baax a baax di leen ci gërëm di ci sant mbooleem taalibe yi nga xam ne daal joxe nañ ci seen addiye eh, te jaarale woon ko ci yéen ñi ngi seere ne addiye ji agsi na fii ci jumaa ji incha allah dana dem ci liggéey bi liggéey bi nag liggéeyub Serigne Touba la boo xam ne ni nga ko waxee léegi jàpp nañ ne kuy liggéey Serigne Touba ba dàkk ko ci jumaa ji ci lépp loo xam ne mooy jëm ci entretien bi wala luy dundal barab bi ak luy sàmm warma ji ak loo xam ne mooy doxal liggéey bee ñuy def ci bàq ya di ko defal jullit yëpp loolu jàpp naa ne ku ci def sab dërëm ak foo mën a nekk mu leer la ne yaa ngi yor sag bale di bale bokk ci ñi bale jumaa ji wala nga bokk ci ñi nga xam ne ñu ngi yor ay siwo ndax nekkoo fi waaye su fekkee ne sab dërëm dem na ci yaa ngi ñu fi nekk yéen a yem loolu nag euh, sëñ Tuubaa rek moo ciy boole nit moo ci boole taale bi bu mu bëgg mu bokk ci nit mën naa yor ay milliards te du ci mën a bokk kon damay jàpp ne Sëñ Tuubaa moo ñu ci boole ñu bokk di ko liggéeyal fii ci barab bi kon nag lim diggee ci ku liggéeyal ci barab bi ci barab bi muy ñaan yi nga xam ne ñaan na ko te bindal ko boppam ci ne yàlla nanga nga jéggal képp koo xam ne eh, yaa ngi liggéey ci yaa ngi may liggéeyal rawatina fii ci jumaa ji wala koo ne yaa ngi dimbale ku may liggéeyal nanga leen jéggal te dimbale leen loolu ñaan gu goo xam ne rafet nañ ci njort lool te di ñaan suñu borom ñu tàbbi ci te suñu borom it may ñu ay xéewal ak ay man-man yoo xam ne liñ bëgg ak li ñu yéenee defal sëriñ bi danañ ko man te def ci lu kawe suñ jot barakati xaadim rasul li nga wax nii nag ne eh, incha li ñuy ñaan mooy jëf ju rëy joo xam ne suñ ñëwee dañ naan waa Mali ñoo ko ñoo ko jëf fii loolu yéen a ngi ci ndax amul lépp lu ñu fiy def rek seen seen seen seen seen alal mi ngi ci biir su ngeen fi gisee machine wala ngeen gis fi lu nekk wala lu ngeen fi gis rek ci adde yi nga xam ne moom la cellule yi daayira Moukhaddamatoul Khidma di dajale rek ñoo yor liggéey bi ñoo yor entretien bi ñoo ñoo ko yor kon su ko defee tamit ñu ngi fàttali ni ñu ko fàttalee woon barki dem bu waa Mali di ko fàttali dëkk yi Afrique yëpp ak ñi nga xam ne ñoo nekk diaspora bi ci ñetti yitte yi nga xam ne dayre bi teg nañ ko ci suñ kanam muy loo xam ne munta ñàkk muy oto ndox boo xam ne dafay nekk fii ci jumaa ji nga xam ne fii niñ ko waxee robinet yi fii tension bi dafa amul doole te dañuy nettoyer karo yi saa su nekk te dañuy soxla ndox mu bari kon mun a ñàkk benn citerne boo xam ne daayira bi daf koy am ngir loolu loolu mënut a ñàkk loolu yitte la kon su ko defee ñi ñi ñi dëkk ci dëkk yi Afrique yi te doon ay taalibe Serigne Touba wala Europe wala fu ñu mën a nekk te dégg loolu yitte la joo xam ne mënut ta ñàkk te daayira bi mi ngi taxaw ci pour pour am ko mënut ta ñàkk oto mbalit boo xam ne dafiy nekk ngir mbalit mi ñuy dajale fii muy poubelle yi ak yu demee noonu yooyu yëpp dana koy mën a jël di ko tuuri fële ca bàq yi nga xam ne jullit yëpp ko bokk tamit te muy manqué ndox bu ñuy waajal ku fi bàyyi ko sax muy am jafe-jafe mënut a ñàkk benn citerne boo xam ne dafay nekk sax fa nga xam ne yitte jooju day saafaraw daayira Muxaddamatul Xidma moom la sëriñ bi jël dénk ko loolu kon lépp lu aju ci lii lu luy saafara mbir yi ak loo xam ne mooy entretien bi ak luy dindi e, poussière bi ak luy saafara la war a am ci bàq yi lépp jàpp nañ ne ñun la war te loolu nag niñ koy waxee sëriñ tubaa moom du jëggaani fenn lenn suñu borom may na ko ay taalibe yoo xam ne jaral nañ ko lu nekk te luñ am am nañ xolub jox ko ko ba jeex ba mu jeex takk kon nag lépp loo xam ne mooy yitte joo xam ne am na ci yoon wi ni ni ko suñuy kilifa di defee mooy taalibe yi rek lañ koy diis ñoom lañ koy wax kon ñi ngi soññ suñu bopp di soññ mboolem membre yi daayira Muxaddamatul Xidma ak silil yëpp ñu bàyyi xel loolu te suñu boroom defal ñu kattan defal ñu am koom ba liñ yéene lépp ñu mën koo am ba am ci lu kawe suñ jort ñu ngi jégalu ci guddal gi di sant ñëpp di leen gërëm di ñaan suñu borom ñu teewee ko at yu bëree bëree bëri suñu borom defal ñu tawféex euh, fee nga nekk tamit di Mali képp koo xam ne yaa ngay liggéey suñ borom gën laa kattanal ku fa am jafe-jafe suñu borom saafara ko képp koo xam ne am nga yitte suñu borom faj ko ci daraja yi barab bii ñu toog daraja yi borom barab bi barakati xaadim rasul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu Euh, jërëjëf sëñ Abdou ci kàddu yi am solo yooyu euh, di ñaan yàlla suñ borom dolli ñu taw feex bu baax euh, di tub bu baax a baax a baax nag ci yéex gi nga xamante ni yéex nañ ko indi liggéey bi loolu tamit gàllankoor gi ci amoon rek mooy jëwriñ ñi léeg-léeg bu di ñëw xañ ñi dañuy teel a ñëw ñi xaw a yéex a ñëw te ñu ci baree bari tamit ndeysaan danoo yor kër fii ci Touba bu ñëwee wàccaayu màggal geeg yooyu xaw leen a xaw leen a gàllankoor wante doonu bëgg saa su nekk addiye ji di dugg ci liggéey bi nga xamante ni mooy liggéeyu màggal gi wante ba léegi rek ba léegi génnu ci waaw loolu tamit danañ ko waaw fi mu ñëwee jëwriñ nee na fi ñëwee fi la baaxee kon loolu tamit daanaka ñu bari dañuy jàpp ni ak gàllankoor la wante du gàllankoor waaw fi mu ñëwee fi la fi la fi la baax waaw ndeysaan dégg nga comme saa su nekk rek liggéey bi heure bu ñëwee rek dana dana am fu mu dugg kon loolu ñu ngi ci euh, bàyyiloo xel mbokki taalibe bu baax a baax a baax a baax di ñaanaat yàlla suñu borom doole ñu feex mhm. waaw euh, bu ko defee tamit euh, liggéey boobu nga xamante ni tamit jëwriñ wax na ko léegi muy seetal na ndox yoo xamante ni dañ koy soxla ci jumaay ji ñu ngi ciy tàllal loxo mbooleem jëwriñ joo xamante ni yaa ngi Mali te yàlla suñu borom may la kattan ngay jëf ci liggéey sëriñ Tuubaa bi bàyyiwun kenn képp koo xamante ni jëwriñ nga Mali te yàlla sun borom may la kattanu doole ñu ngi la koy ñu ngi la ciy tàllal loxo bu baax bàyyiwun sax ki nga xamante ni mooy ambassadeur bi nga xam ne moo nekk Mali ak mboolem autorité boo xamante ni yaa nga fa ak mboolem suñ mbokki Mali yi nga xamante ni sëñ Tuubaa leen bëgg su màggal jotee lu jot ñu yëkkati seen addiya di ca def képp koo xamante ni daal yaa ngi euh, lijjanti maanaam bëgg-bëggi sëñ bi di namm bëgg-bëggi sëñ bi liggéeyal sëriñ Touba moom ci barab bii rek la ware muy jumaay tubaa lépp lu ci waaye def na la leer ni ci loxob sëñ bi nga ko teg loolu nag ñu ngi koy ñu ngi ciy tàllal loxo yi baax a baax mbokki taalibe yi dégg nañ sëñ Mountakha wax ni ñàkk xama fi nekk wante buñ xamoon liggéey bi ñëpp dinañ ci soob seen loxo kon liggéey bi day liggéey boo xamante ni sëñ tubaa ci boppam moo ko digle waxoon na ni sama doom yi sama xasida yi sama jumaa ji kon nag képp koo xamante ni yaa ngi jëf ci jumaa ji yaa ngi jëf ci ndigalul sëñ bi te yaa ngi jëf tamit ci bëgg-bëggi sëñ bi kon nan euh, ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mbokki taalibe bi gën a xam liggéey bi ba gën koo jàppaat bu baax a baax a baax lépp loo xamante ni daal bëgg-bëgg la ci jumaa ji ñu fa yéene cee teg suñu tànk bu baax kon jëwri ñi nga xamante ni tey ji ñoo ñëw ci bis bi bëgg nañ bu buñ demee tamit ñu gën a yaatal liggéey bi foofu lépp lu ci waay man jar na sax ubbi ay compte ubbi tamit ay ay ay ay groupe whatsapp yoo xamante ni fam jëm mooy jaayante ci liggéey Serigne tubaab bi jëm ci certain certain yi nga xamante ni dañ koo soxla ci ci jumaa ji bu buñ mënta jënd oto tamit mën a dara dajale àddee joo xamante ni dina mën a mën a mottali ab oto yaakaar naa ni loola danañ ko man kon lan xam ni daal ku mën a jaayante lu waay man tamit dañ koy tàmbalee fii si nga xamante ni fi lañ toog ci biir jumaa ji di ci soññee ba keroog yàlla suñu borom di dogal ñu am leen bëgg di jéggulu baax a baax ci kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu akramtani ikrama man ma za wa kullu ma aradtuhu minkan fahal aataytani ya rabbi min ladunka shukran hakiman faraditu anka baarakta li ya rabbi fi urufi wa xayriha wa jutta bil maxruufi malaktani bi kawnika alkarima maa xaada lii tabsiira wa takrima ahtaytani mal xalba an shaa kullama mada min addurri maawta sullama kaafa'ani man maa lahu kufan ahad bi maa li xayri saaxa kulla man jahad akramani bi xul wallahul ahad rabbi walam yakun lahu kufuwan ahad najaani allahu mukarrimu samad tanaajiyan bi kafaani alkamad wajahali akramu anfa alkaram wa darari bi xayra jillin saram ashaluhu kawnati alqasida xaariqatan li aadatin mufida yaa xayu yaa qayuumu salli bi salaam ala lasi jaa bi axsani kalaam ala lasi jaa bi axsani kalaam salli wa sallim wal taqabal sal kalaam mun na xalaa qaari si nuruufi bima yafuuqu sanna min maxruufi linaasimi uruufi xallidi rabba yaa man kafaawu sal xuruuri wan nubba waliyu yaa rahmaanu yaa rahimu yaa ayuba yaa xayoomu yaa mukrimu yaa waliyu yaa rahmaanu yaa rahimu yaa ayuba yaa xayoomu yaa mukrimu yaa naajaaka abduka alqadiimu saasala musalliman ala mustahsin walxula subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala almursaliin walhamdu lillahi rabbil aalamiin